asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taaliba yi ak fu mu di nekk ci biir àdduna bi ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Seyd al Muxtaar al xalifatul aam li taifati al muridiya xafisahullah wara ak turu Cheikh mu Muntaxa ibn Cheikh Ahmadul Bachir nga xam ne mooy sunu jawriñ ci liggéey bi ak sëriñ Mamoor Mbakke ibn Cheikh Murtada nga xam ne ci taxawaayam bu rafet moom dem ci liggéey bi ñu ngi nuyu ci turu sunu kilifa yooyu di leen sant di leen gërëm di leen ziara di wax di wax ci turu daairatu muqaddamatul xidma mm, yépp leen jotal sunu cant ak sunu ngërëm ak sunu ñaan ak di leen wax ni ñu seddeen seeni jëf yu rëy yi nga xam ne yàgg ngeen koo jëf jëme ko ci jumaa ji ngir jëmi Sëriñ Tuubaa di wax ne jëf yi na lool yëpp agsi na euh, te bokk taal bi nga xam ñoo nekk Espagne ay nga xam ñoo nekk Italie ay nekk France ay nekk si Europe yëpp ci njiitul sëñ Xasan Diop mi nga xam ne moo fa nekkal daayira bi ak joor yi mu ko seqal ñu ngi teg ngërëm li kon ak cant gi ci loxo yi sëñ Asan ngir mu jot lu nu ko mboolem bokk taalibe yi di wax ni desat ci li weesu lépp xam ne liggéey yëpp si na dara tëgut lépp agsi na nañ ko ci biir liggéey bi ñu ngi koy seere di ko seeral mbokki taal sax ñi nga xam ñoo nekk ba Amérique ak ñu nekk ba Siin seen taxawaay rafet lépp mm, gannaaw yàlla mu jaar ci jote ak jokkale suñu asan moom nga xam ne mi ngi ci Espagne ci taxawaayam bu rafet wax dëgg yàlla ban réew moo xam ne liggéey bi àgg na fa waaye ci taxawaayam la ak ci pas-pasam ak ci yéeneem ju rëy ànd ak sëñ Abdul mi nga xam ni sëñ Blaat Bousso mi nga xam ne mooy ndawul bi ci bitti seen taxawaay wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafet bu baax te di sax di leen gërëm euh, duñu tàyyi duñu sonn guddi ak bëccëg seen xalaat seen lépp mu ngi jëm ci liggéey ñuy xamal kon mbooleem mbokki taal yi ci bitti ne sëñ Abdul Ahad loo xam ne daatu ma xam moo ko yebal fi ko waaye gis na nga xam ne ci turu daayira bi bu ki ci ñëw lépp lu waaye teg ci loxoom maa nga teg suñu asan incha allah dana ak ci liggéey bi kon Abdou Lahad ñu xam ne kon daayira bi moo ko yebal ñëw na ci turu daayira bi lépp lu teg ci loxoom nag wala mu jaar ci moom ak na ci daayira bi ak seen ba gën mat kon daal ñu ngi euh, xamal ñëpp ne sëñ Assane jóob ak Abdou sëñ Abdou Lahad Bousso képp kuñ dikk ci yow luñ la wax waxi daayira bi la loolu teg seen loxo itam dana ak si daayira bi incha allah kon loolu rek mooy kàddu yi nga xam ni dañ leen ko jotal xamal leen ñoom fu ñu leen gis rek nañu xam ne bi leen tax a jóg lépp lu laan waaye jox wala lépp lu laan waaye wax dana ak si daayira bi lépp lu waaye nga xam ne daayira tam itam ba ko laa dañ la ko leeral ndax dara yi daayira bi ump leen ñu ngi leen rafet sant bu baax seen taxawaay day ñaanal ñoom di ñaanal tam mboolem ñi nga xam ne ñoo lay jëf leen di ci biti sëñ Tuubaa doon yàlla doo leen tofeex ci bak sëñ ba lépp lu waay ci def ko liggéey ci yoon wi fas yéene ko liggéey sëñ Tuubaa su mot may la ko nga def ko ni nga ko bëgge su ma musal leen dafa leen wér sàmmal leen seen diine sàmmal seen lislaam sàmmal leen seen taalibe yokk seen i xéewal ba li ngeen yéene lépp nga def ko ci barke sëñ Tuubaa loolu mooy kàddu yi nga xam ne danañ ko uh, sànni ngir rek yor ak cant ci mboolem mm, mbokki taalibe yi ak it eh, leen na le sëñ Assane ak sëñ Abdou Lahad ñooy ndaw yi nga xam ne ñoom daayira bi yebal ci biti ku leen gis nga xam ne ndawul daayira bi lañu lépp lan waaye jox doon ak si daayira bi incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi